fii ci Wadé Diomène ci commune de Bambey wane ngeen ni Benno Bokk Yaakaar moom ngeen doyloo moom ngeen di wooteel au soir du 23 janvier 2022 Ici à Wadé dans la commune de Bambay, je vis une jeunesse déterminée, engagée, prête à relire le maire Ganambay au soir du 23 janvier 2022. que dëgg a mon opposition réalisation yves pézan pesant Macky Sall def d'ev. Bambey pour ñu wooteel Benno ci département bi ak ci commune de Bambey le président de la république Macky Sall Wa Bambey ñu ngi lay sant wa Bambey ñu ngi lay faté wo ben yoon wa Bambey ak ay doomu Bambey. sëñ fallu Mbacké transitaire ñu ngi lay nuyu di la sant bu baaxa baax jox nga ndigal sa taalibe yi nek ci département de Bambey pour nañ wotal ben bokk yaakar ta teraanga def ko si yëkkat sa temps def ko si kon nag Serigne Fallou Mbacké transitaire ñu ngi lay nuyu ñi ngi sant bu baax waa xippil xool gis naa leen waa xippil xool gis naa leen gis naa ni li leen doole gay waxoon def ngeen ko ñëw ngeen yéen ngi campagne pour benn bokk yaakaar am ndam fii ci Bambey kon nekk doole gay maa ngi lay remercier bu baax maa ngi lay sant bu baax ci tudu ben bokk yaakaar bi nga xamne may maay de campagne bi. nuyoo wa Ndiomène ak wa Wadé tay sama xel dalna ku gis ambassadeur elas Dia. émission bi ànd ci ak la Lion de elas Dia. elas Dia li nga bay sa war ci président de la république matal nga ko yow mi ñu def directeur campagne ci commune bi. def la ko ci département bi ku gis lii xam ne opposant amatul baa Mbaye dama ni ku gis lii El ja def def ko ci fan yi def ko ci département Ba Mbaye xam ne dañuy ñi waan opposition am na Ba Mbaye waaye xam ngeen ne fii opposition amu fii li may wax mooy li monsieur le maire Gana Mbaye def Ba Mbaye ay réalisation luñ mën a téye ànd ceeg El mii nga xam ne mooy directeur campagne dama bëgg ngeen teel a jóg yow El lii moom buur na bët ëpp na xel man de meeting bu ne taxaw naa fi waaye bii gisaguma ko Père Diop tey ci loolu diine yëpp nag ak kilifaay aada yi ñoo joxe ndigal nañ ñëpp watee Benno Bokk Yaakaar marron beige bi nga xamanteni mo am bop fas bi dañu koy ñaar donc risque de ne pas être trop bavard euh, juste pour vous dire que euh, c'est très important de prendre la parole aujourd'hui pour vous donner un consigne de vote de voter pour Benno Bokk particulièrement Mouben, Waden ak Ngomen. je parle en haute voix je parle en haute voix et je parle sous le contrôle de mes parents. Donc, je vous donne un consigne de vote, de voter pour Benno Bokuyakar, pour Elas Abdoulaye nous amdam. Opposition amu fi wa de wa ndiomen. Elas Dia ganna mbay lañuy wotel ngir jëmmi Elas Dia. Lo ngeen ma waxone barki dem bi ni réunion ñun Opposition allez dégage. du loolu ngeen ma waxoon mais lii moo ma solo lii moo ma solo ku deful lii tooñ nga ma ku voteelut bopp fas yii tooñ nga ma